bi ñu ko génnee ci am réewam mu sori ay njabootam ak i ñooñam moom la doon wéttalikoo ba di ci lëggéeyal suñu boroom bi nga xamante ni moo ko wàccee ci gën gi mbindéef Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa la shakka anna al-Mustafa fi xalqi wa xulqi ittifaaqa رب غفور حاد مع أغنياء زنبان وأني لما يلي زبين li lépp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi baaxoo seetaan seen télévision Al Mouridiyyah te daan ñu topp seen émission bi de sabaax amaat nañu mbégte di leen nuyu te di leen ziar ñuy jiital ci néew beeg ziar bi sunu sang Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké eh, di ko ñaanal sunu borom mu guddal fanam defal ko it ak wér ba naa li nga xam ne sumb na ko ci liggéey maam Cheikhul Khadim mu yeggale ko ak sagoom te lépp nu ànd ko ak moom waaye lépp it nu ànd ko ak mboolem njabootu Serigne Touba kenn bañ a wute. di fàttali rek ne tey la alxames yamoo ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février atum 2023 tolloo ak ñaari fan ci weeru chambaan atum junneeg ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñeent euh, ci alxames tey jii ñu ànd ak seriñ Abdou Salam Dieng mi sunu ganuk tey euh, ànd it ak imam Ahmed Touré mu di ñu gunge ci waxtaan wi daanu dugg ci buntu alxuraanu karim buntu hadis euh, buntu arminaat xaside ak xikma ci lañu koy jeexale ñu ñaan yàlla sunu borom mu defal nu dégg ak topp. ba lu nu fi jëlee rek nu man koo jëfe sëñ Abdou Salaam salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Mouhamadou Kébé ñu ngi lay fay ab nuyoo. Mm. di nuyu tamit sëñ Mouhamadou Touré. Mm. di nuyu mboolem ñu ngi bàyyi xel almuridiya. Mm. gannaaw nag bu ñu jiitalee sant yàlla bu baax ci xéwalam yi ak may gi ñu may ñu teewaat. waaye di ñaanal tam suñu borom mu doole ay xéwal si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom yokk fi ak yàggam lool. amiin yaa rabbal ak wéram. amiin te def jàmm suñu réew mi. ak dal amin yaa rabbal alamin jërëjëf sëñ Abdou Salaam ñu lay sant bu baax a baax imaam salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. ndax sëñ Modou ñoo ngi lay delloo nuyoo di nuyu bu baax tam sëriñ Abdou Salaam. li mm-hmm. nuyu itam mboolem ñi nga xam ne ñooy safoo seen télévision Almouridiyyah TV rawatina si jotaay bii di As-Sabah mm-hmm. di ci jiital suñu kilifa diine ci siyaar bi. Mm-hmm. ak ci ñaan yi te di leen ñaanal yàlla suñu borom itam sàmm leen seen njaboot ak islaam. amiin di ñaanal way dawli itam suñu borom bi tabaaraka wa taala jéggal leen leen tàbbal leen aljana yi su ko defee kon daal di tàbbi ci buntu bu njëkk bi di buntu bu alxuraanu karim laay ji ngeen fas yéene laabire tey sëñ Abdou Sam ci mën a jàngate waaw laay ji de moom laay joo xam ne mi ngi ci suratul isra mhm. suñu boroom di ñu si wax téere bi mu ñu indil mhm. lan mooy ko tax a jóg mhm. ak nuñ ko war a jàppe tax mu ne téere bii de inna haadal quraan la wax loolu nag si ñuy jàngale wax bu ne woon rek alquraan rek tàmbalee sa sax wax di dana dëgër te dana diis waaye dafa tàmbalee si inna haadal quraan ne biib téere day téere bii joxoñ ko bu baax ngir ñu bàyyi ko xel mu ne yahdi lillati hiya aqwam daf ñoo wommat di ñu jëme fa gën a jub fa gën a jub ci wutal la njëriñ fa gën a jub si musal la si lépp luy lore kon mooy téere boo xam ne ku bëgg ak njub gu wér gu gaaw te gàtt nee na alxuraan moo ko moo moo la ko mën a may ñu say dégg nag ne lam sa tegaat ci dana bégal ñi gëm yàlla ak yu mel noonu ci ñiy jëf yow yiw ne dañ am ab yool waaye li jiitu sa euh, njub googu mooy nangu téere bi mu mel nag aaya bi bi mu ko waxee boo delluwaatee si biir téere bi da ngay fekkaat fu baree bari muy wax ne ak njëriñ li si nekk ak li ma si wax lépp teewul ñu baree bari nag moom. dañ ko fa ne kupp wuti leneen. ñu wuti leneen nag am na la rek foo xam ne dafa leen a tuddee ñooñu ñi topp seen bànneex am foo xam ne dañ faa ñii dañoo topp seen njort te lenn lu si am njëriñ nag amul ndax dafa wax ne fenn dana in yattabi'una illa zanna nee na ñooñu di nga xam ne dañ fay bàyyi alxuraan. créer yeneen loi yu leen tënk di si àtte nit ñi wala ñoom ñu si àtte àtte wu njumte njumte ko mm-hmm. ndax loola boo ko xoolee njort rek lay doon njort ku def di xañ na moo gën kon waaye li gën moom suñu boroom wax na ko seen xuraan mbir mu nekk itam la sa la sa la sa am njëriñ ak la sa amal njëriñ nit ki suñu borom rëdd na ko si alxuraan kon delluwoon si alxuraan moo gën a yomb fuuf ci lépp loo xam ne si ne nit ñi dañ koy seq seen wàllu àdduna wala seen wàllu dina mm-hmm. dégg nga wa mu ne it wa inna zanna laa yuxni min alxaqi shay'an jortu taxut a jot dëgg ga man ngay jortu rek léegi bariwaa na sax luñ la wanagul dëkk buñ la naan demagoo fa na ngay xalaate mbedd yaag na ngay xalaate kër diw fa muy nekk da ngay dem ba àgg xam ne position boobu nekku fa loolu njort mooy mel njort hmm. li muy doon lu lu wér te dëggu bariwul kon nit bu bëggee gannaaw dund àdduna dong mooy capitalam su bañee perte ak dundam faw nag mu jël alxuraan te ko ci kanam loolu moo tax ñu indi alquran indiwaat ko si buñ demee ba jamono toll fi mu toll ci jaxasoo. Mm-hmm. jamono toll fi mu toll ci lëj. ñu mën a xam nag ne wax dëgg yàlla suñu jaaxlee. Mm-hmm. ñoo ko teg suñu bopp ndax suñu borom wutul nañu aw yoon wu leer. Mm-hmm. ndax yii aqwam la wax yahdi lillati yii aqwam mbir mu nekk na sa gën la lay tànnal waaw ay mbir mën naa bari ñu naan lii yëpp xañ na baax na lii baax na lii baax na waaye moom bu ñëwee alxuraan moom la gën a baax rek te gën a jub loolu lay loolu lay joxeñ kon saa boo ko bàyyee rek moom deuxième ba ngay jël mais première moom amatoo ko qualité moom dootoo ko am kon moo tax mu ne <coughs> ku fi bàyyi alxuraan seetlu ko nee na yàgg-yàgg ah wart wart rek coon rek wa man aada an zikri fa inna lahu maishatan dankan nee na saa bu nit ki réyee ay pexe walla mu doyloo ay pexeem wala xalaatam ba ne fi ñukk alxuraan leneen lu mu nasaat nee na ñaar la koy ñaar la koy dundal dund gu jaxasoo lépp lëj si boppam du xam fu muy daleete du xam fu muy tàmbaleete ndax nee na daa bàyyi njubug alxuraan kon nag alxuraan jooju ñuy ndokkeel ñëpp ci weeru màgg wi ñu génn di ndokkeel ñëpp itam ci weer wi ñu tàmbali ndax niñ ko waxee dañoo wax ne chaban moom mooy weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy weeru alxuraan ndax dañoo wax ne rajab mooy weeru sunu boroom alxuraan nag euh, wala rajab euh, saaban bi ñu nekk nag dafa jàmbatoon suñu borom ne ko da nga maa dugal ci diggante ñaari weer yu màgg muy rajab ak ramadan hmm. kon man lan nga may defal muy sama jagle mu ne ko yow defal naa la ñuy jàng sew alxuraan ne kuy jàng sew alxuraan soxol day laab sa day dund ba boroom xam-xam yi tasawuf sax dañoo wax ne rajab dafa mel ne mooy ak ak buñ ko doon jàngale si kii bay mooy waxtu wu ñuy dijj ak kii ak di raru tool yi mu set di waajal nag koor mu taw nga mën a ji moo tax sëñ bi sax xam na fu mu ko junj ne xusna mataban maal xufraani fii rajabin wa nartaji fil bawaaqi araw daman xurimu nee na ñun teel nañoo jël suñuy matuwaay ba waajoon nañ sa rajab tuubal nañ suñu boroom ba mu nangul ñu ba waajal nañ suñu xol ba yiw wi nar a ñëw si koor incha allah bu ñëwee dañ ko mën a dékku mhm. kon weer la woo xam ne dañ cee war di jàng alxuraan lu baree bari ku ko man waaye donte mënu jàng lu bari ngay jéem a jël benn aaya wala ñaar dem si ñi la ñi la tane si xam-xam nga jël aaya boobu tekki ko xam lan lay firi jéem saa dund jéem a lijjanti sa say mbir muy kon bunt boo xam ne itam buñ ko toppee walaqad sarafnaa linnaasi fi haadal quraan min kulli masal fa aba ak naas illa kufura nee na amul menn misaal wala menn masala lu dul ne def nañ ko si alxuraan leeral ko farañ fàcce ko fa saraf naa mooy farañ fàcce nañ ko defuñu ko sax enguro mu jalu nii waaye dañ ko tasaare leen lu si ne détaillé ko ba mu leer waaye teewul nii ne lii lépp bañ ko defee faaba aksaru naas illa kufura li ëpp ci nit ñi moom waxuñ dara si alxuraan nangu nanguñ mu digal leen mm-hmm. nanguñ ko boole seen i mbir jàpp ne daal dund goo xam ne moom alxuraan nekk na si ñoom da leen di lëjël da leen di da leen di xatal. Mm-hmm. dëgg la waaw jërëjëf jërëjëf sëñ sëñ Abdou Salaam ñu ngi lay ñu ngi lay santaat bu baax a baax ci buntu bu am solo bi nga indi muy al alxuraan. ci uh, suratul isra ay fukk ay juróom-ñeent inna hada alquran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashiru almuminina uh, allazina yamaluna salihat ana lahum ajran kabiran comme ni nga ko waxee uh, li li li li nga ko ni nga ko indee nag noonu la day mel ne noonu la noonu noonu noonu la mës a boo dee xool ci jamono yonent bi saa salaam ba léegi suñu jëmm yaare tey jii dafay mel ni maanaam mboolem fu ab jullit nekk communauté musulmane wala umma bi fu ñu mën di nekk dana ci am xëy na ñoo xam ne si danañ jéem a doxal alxuraan ci seenu biir dund waaye dafa mel ne ñenn ñi léeg-léeg dañuy euh, euh, parce que li ñuy wax rek doomu am xelam moo ko sonal euh, ñenn ñi jàpp nañ ne ñoo gën a muus yàlla ñenn ñi jàpp nañ ne yàlla dafa am yum fàtte ñenn ñi jàpp nañ ne alxuraan jamono daf fooy xaw a raw léeg lekk ñenn ñi jàpp ne faaw ñu di ko contextualiser maanaam fu jamono toll ñu méngale ko ak moom ñenn ñi jàpp ne sax ñoo ëpp yërmande sunu borom tey ci misaalum euh, koo xam dafa rey dañ ko war a rey wala koo xam dafa sàcc dañoo war a rek loxoom yu mel noonu euh, ñenn ñi jàpp ne euh, ñoom daal fi ñu toll ci seen intelligence ci seenu muus ci seenu yow ci seenu xam ci seenu jàng ci seenu tukki fu nekk ci seenu dem fu nekk daal ñoom seen expérience raw na foofu raw na foofu mm-hmm. foofu nag bu ñu fi tollee te ñi koy def ñëpp ñooñu ma wax ñi ay jullit la ñuy doon Euh, ñi koy def ñëpp donc daanaka lu ci bëree bëri bëri ci seen xelum bopp lañ koy teg ak ci seen yaakaar yaakaari bopp muy zamna bi nga doon wax léegi euh, te euh, téere bi day mel ne moom dafa wuute ak yeneen téere yi ndax dafa téere boo xam ne si jamono du ko raw mukk ni ngeen koy faral di waxee saa su nekk te itam lu waay di seet lu nekk boo nee gisuma ko ci yaa ko ci gisut waaye ma nga ca. amul lu mu bàyyi am day faral wax ne maanaam lépp loo xam ne si doomu aadama yittewoo na ko ci kaw suuf rek boo yëree alxuraan da nga ko ci fekk kon dafay mel ne lépp a ngi ci léegi rek kon day mel ne li des mooy sëñ Abdou Sam gëstu gi gëstu gi nag day tàmbalee ci jàng gi ba noppi boo jàngee ba pare jéem a xam nag li mu wax léegi ci jéem a xam googu aussi dafay am ay Euh, tafaasir muy ay tafsir yi nga xam ne si borom xam-xam yi def nañu ko. Euh, tafsir yooyu aussi léeg-léeg dana bokk ci li nga xam ne euh, dana tax nit ñi di jël lii moo leen intéressé les intéressé wu leen lii ni dañ koy jël parce daf leen a arrangé lee duñ ko jël parce que arrangé wu leen kon kenn ku nekk ak ni nga koy gisee man de alxuraan aaya bi nii laa ko gisee nii laa ko tafsiré kenn man de nii laa ko gisee nii laa ko tafsiré même bu fekkente ne ñëpp seen jubluwaay mooy fexe ba nit xam li nekk ci alxuraan dëgg-dëgg ak li suñ daal mooy maanaam yitte jiñ ci def ci di jóbbu xale yi ñuy jànki dañoo war a def ci yitte jooju aussi ba xale yi di xam li alxuraan di wax suñ ko xamee ba noppi tamit ñu mën koo tasaare ci ñi nga xam ne xëy na jotuñoo dem daara ndax ñëpp nañoo demandoo daara su ko defee loolu ñu jéem ko nag di ko appliquer ci dëkk bi ci réew mi ak ci pénc mi muy laaj bu am solo ndax yitte jiñ def si gone gi ba mu jàng alxuraan mm-hmm. naka yitte ju ko doublé lañu waroon a def ba mu xam si alxuraan dafa am genn kilifa gu ma sa andi yenn doom ci daara mm. doom ja toog fa ba mokkal Alxuraan mm. ba bind kaamil mm. ba mu fa di seet ci xale bi fekk ko muy bind ki koy jàngal ne ko ah, moom de mi ngi ci kaamilum ñaareelam sax daa mel ne bii moo gën a rafet moo gën a wow waaye ba mu ko gisee dane man li tax ma andi ko fi mooy li alxuraan muy dund loolu loolu kooku kooku loolu la waxoon tax mu andi ko fi mooy bëgg muy dund li alxuraan di digle. kooku sax Mouhamadou Mountakha la sax. moom moo moo waxoon loolu. <laughs> waaw yaa ngi dégg <laughs> waaw <laughs> yaakaar naa boobu. dafa am doom ju fi nekkoon mu waxoon si lu mel noonu. Hmm. mu ñëwoon fii si daari seet si ko biñ ko koy wan. muy bind kaamil ñaari sax la waxoon loolu. Hmm. daan ne moom muy dund alxuraan ji. kon kon saxaaba yi. Hmm. li mu wute woon ak ñun ci alxuraan. du woon tari ko rek dem. donte loolu ngëneel la. ndax ngëneel la lu rëy loo xam ne. bu ñëpp sàgganoon ba mokkaluñu alxuraan benn bu nga xam ne tey ji maa day taali buñ bëggoon a bind kaamil duñ ko man loolu julli dañuy am bàkkaar waaye nag bu fekkente ne am na lim bu ko mokkal la ña si des ñoom lañ lañ lañ mënut a ñàkk te ñëpp war ko def mooy atte woos alxuraan ak ak dund alxuraan loolu mooy li mun a ñàkk kon yitte ji ñu def si gone gi ba mu mokk alxuraan yitte ju ko raw waajur bi da ko war a sonne ci gone gi ba mu mën a toog sa daara ja wala mu jëlee ko foofa bu fekkee xam-xamu alxuraan ba mu fa bëgg amu ko fa yóbbu ko foo xam ne dana fa mën a jàng alxuraan xam la alxuraan di jàngale waaye xam gi rek da du doy mm-hmm. ñu dundaloo ko ko ni suñ mag ña doon def mooy saxaaba yi waxoon nañ ne ñoom amul yenn aaya fukki aaya yu ñuy jàng di ko weesu lu dul ne mm-hmm. dañ koy tatbiix mooy dañ koy appliquer dañ koy jëfe mm-hmm. bu ne bàyyi leen nangam dañuy gar seen bakkan dañ koy bàyyi bu ne def leen nangam it donte nekkuñu si woon dañ koy fexee def su ko defee wanaasu loolu ba mu mokk. ñu jël leneen. moo tax seenum njàng gaawutoon comme ni mu njàng gaawee si ñetteet ñeenteet xëy na sax aw xaan wàccutoon jumlatan bañ mën koo jàngandoo lépp waaye ñoom dañ ko doon jéem a dund kon dund gi alxuraan mooy di mënta ñàkk. te dund gi alxuraan moom misaal mu nekk jox na ko joxe na ko. loo loo looy def lu ne amul lenn loo xam ne mën ngaa jékki-jékki. soobu sa te alxuraan néewu la defe ko nii. wala bàyyil di amut si sag dund bi nit ki gane àdduna ba keroog muy génn àdduna si lépp luy jaamu yàlla lu muy jëflanteeg nit lu muy jëflanteeg environnement bi sax alxuraan wax na sax amul lu mu bàyyi waaw kon euh, mu jëlal nag lu am solo mooy ak buum ku dëgër ci mhm. ngëm gi ñuy gëm yàlla mhm. ni ñuy gëm alxuraan di ko firndeel mhm. bi mu ne allazina yuminul xayb bi mu bi mu bi mu da saa topp ne yuminuuna bil ghaybi wa yuqimuuna salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun waaye da saa am foo xam ne da saa wax ne allazina yuminuuna bimaa mooy faw dañuy nangu alxuraan waaye bu fekkente ne yow sa ngëm nanguwut alxuraan da nga koy jàng rek wala njàng sax macha la sa neex ngay jël gàttal ko ñàkk koo dégg ñàkk koo jëfe ba pare ña say ña say góorgóorloo ko nam na bi sax far nga jàppaleen ñu wayadi mm. wala ñu jëmul fenn loolu loolu musiba la moo ñu indil tey dund ko jafax jaxasoo gi ci lu wér si ne moom la ñuy dund tey ci lu wér wallaay euh, dëgg la euh, muy kon aay bu am am am solo ci soññewaat rek li nga xam ne moom mooy alxuraan li nga xam ne mooy code de vie bi mm-hmm. maanaam euh, doomu aadama bi ko yàlla wàccee ci alxuraan ba pare ci soo kaw suuf ba pare da ko boole alxuraan ngir mu wan ko nag léegi naka la war a dunde ak naka la fi war a nekke ngir ëllëg bu dellu siwaatee bokk ci ñi nga xam ne si euh, yu bashirul muminin na yaamaluna salihat anna lahum ajran kabiran suñ borom defal leen pay goo xam ne si pay gu rëy lay doon euh, imam mu ne yu bashirul muminin kon jullit yee ko moom jullit yi nag euh, bu la mbir boo ko moomee war nga cee mën a jariñoo bu baax a baax a baax ndax na nga cay jariñoo mooy nga fexe ba xam li ñu teg ci say loxo lu mu doon ak nga fexe ba li nekk ci biir lépp it nga mën koo xam Euh, liñ la ci digal nga mën koo xam liñ la ci moytuloo nga mën koo xam su ko defee topp gi day yomb moytu tere yi tamit dafay dafay dafa dafa dafay dafay dafay dafay yomb waaye nag loolu dafa mel na ñun moo ñu xaw a manqué tuuti ñu ngi ciy góorgóorlu naam ci wàllu jàng geeg ci daara yeeg ci góorgóorlu ci fexe di yóbbu gone yeeg yu doon waaye léeg-léeg mat gi nga xam ne si noonu la war a mate dëgg dëgg dëgg dëgg ak suñ paree ni ñu ko war a appliquer tamit ci suñu dund dugal ko ci intégré ko ci mu mel ne lu ci bokk lu ci sax loolu léeg-léeg moom mooy xaw a des ba nga xam ne si ñaare euh, niñ ci war a bénéficier wu dëgg dëgg dëgg ñaar duñ ko ci bénéficier wu ci alxuraan euh, sëriñ Abdou Salam euh, bala may ñëw ci tontu bi rek. ma porox ndoolu tuuti. ci li sëñ Abdou Salam doon junj sànq. ci weer yi ñu tàmbali muy weeru Sambaan. Sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha mhm. dafa wax ne yonent bi ne ko gis daal li ngay woor ci Sambaan dafa bëri. mu ne ko waaye mu ne ko weer la woo xam ne nit ñi dañ ko sàggane. Mhm. ndax dañ ko def ci diggante ñaari weer yu màgg. Mhm. mooy diggante rajab ak ak ak ramadaan. moo tax nit ñi. dañ koy kii te fekk na weer la woo xamante ki lay yàlla di yëkkati jëf yi. te bëgg naa su yëkkati sama jëf yëkkati jëf yi. Mm-hmm. ñuy dem mu yóbbaale sama jëf. Mm-hmm. damay encouragé ci nit ñi kon luñ ci mën a góorgóorlu ci xeeti jaamu yàlla yi rajab mm-hmm. muy woor muy sarax muy jàng alxuraan surtout weeru alxuraan na yëpp nañ ci bàyyi xel foofu laa bëggoon a wax ci solo yi dégg euh, su ma ñëwee ci aaya bi ngir sa tontu bi tam. Euh, damay wax ne euh, aaya ji rek suñu borom nañu ci. suñu nañu haasal quraan yahdi lillati hiya aqwam wa yubassir al muminina alladina yamaluna salihat adalum ajran kabira nee na alquran jii mooy li nga xam ne toujours moo leen di gindi wala boog day gindee day orienté ci li gën a jub lu démocratisme lu démocratie indi ci xalaat wala communisme indi ko wala socialisme indi ko wala beneen système indi ko moo xam ci maa wala jóge moo xam ci euh, gandi la jóge moo xam ci keneen lu mën a doon loo ko rafet rafetal rafetal di dis ko gam-gam lekk alxuraan ndax la muy indi toujours mooy la gën a jub ci wàllu àtte la muy la muy indi mooy la gën a jub xataa boo duggee ci système yi la muy indi moo gën a jub ki sa kër gi sax wàllu soxna yi lu mel ni que polygamie sax moo gën a jub monogamie te ndax loolu xel da koy dem. nangu naa nga am sama soxna. waaye wutal nekkaale. ah. benn ba ñaar. waaye amul droit takk ko. mu ne la déedéet takkal kay organiser ko jox ko ak xam. ku ne jël sa ak ngeen dem ngeen organiser wu dëgg. kon ñuy gis ne lépp lu mën a doon rek la ci alxuraan di indi mooy la gën. ndax alxuraanul karim su ñëwee dafay coordonné. dafay. Euh, jiima fexe ba li ñu tudd ay eh, cohérence am diggante nit ki saahiram ak baatinam mm-hmm. loolu Alxuraan moo koy coordonné mm-hmm. di di coordonné diggante nit ki ay sentimentam ay yëg-yëgim hmm, mm-hmm. ak comportement yëg-yëgam ci bànneex yëg-yëgam ci mer ak yëg-yëgam ci yeneen di ko coordonné ba di ko coordonné ak li nga xam ne mooy comportement am sinon day am ay dérives ay ay ëppal yoo xam ne mu na am ay inxiraafaat yoo xam ne topp bànneex ba dabo ko da koy indi wala topp mer ma dabo ko da koy indi kon alxuraan mooy li def loolu alxuraan mooy coordonné diggante nit ki pas-pasam ngëm-ngëmam ak ay jëfam ba ngëm-ngëmam jëfam di mën a correspondant ak li nga xam ne moom mooy la mu gëm mhm. mais nag ci wàllu ku ibaadaat tam wàllu jaamu yàlla. day fexe ba li ñu lay teg muy ay takaalif. muy li mu lay togg nga war koo jëf. dafay fexe ba muy méngoo ak sa capacité. jëf yow. xam nga bu ñu woon tey farataal naa aj rek na ñëpp aji. mais am na ñu ko man am na ñu ko mënul. koor gi ñëw mu ne farataal naa koor am na ko mën am na ñu ko mënul. kon day fexe ba lim lay samtam dafay correspondre ak sa capacité. kon toujours moom. loolu ci sur le plan économique loo jël rek la ci alxuraan indi du ci yem ak la ci keneen indi ak loola loo ko rafetlu rafetlu gisu ko màndaxe ak alxuraan loolu nag mooy millatul islaam mooy su ko defee nag kon euh, alxuraan a noonu kon muy téere boo xam ne alif lam ra kitaabun uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin xabir dañ ko téere boo xam ne suñu borom daf ko ràbb rab biin woo xam ne daf ko xereñe mu jugee fa moom moom mi nga xam ne dafa dañ kumpa xam na présent li teew li jàll du ko fàtte xam na ko mooy mooy mooy ak li teew yem ci moom ak lii ñëw lépp xam na ko moo tax mu di ko ci àtte comme ni mu ko waxee léegi nag téere la boo xam itam laa yaatihi l baatilu min bayni yadayhi wala min xalfihi tansilun min hakimin hamid euh, ñi passé mënuñu ko jam ci lam leen leen atte fii ñu toll mënuñu ko jam ci benn anam ci nim ñi atte mais ci kanam di ñëw itam kenn mënu ko yàq caaxaan du ko jóge fenn seytaane mënu ci dara kenn mënu ci dara benn yàqkat mënu ci dara mm-hmm. muy téere boo xam itam ba mu wàccee suñu borom dafa lancé benn défi dafa dëkk dëkk mais samp sa ndënd ne ko mën na ñëw xul hmm. la in ijtamaat al insu wal jinnu bi misli haasal quran la yaatoona bi misli wala kaana baadum li baadin zahira hmm. su nit ak jinne daje woon gis ne danañu ràbb ci lu rafete ni alquranul karim hmm. jube ni duñ ko man donte ñoom ñëpp asiatique yeeg africain yeeg européen yeeg ñëpp dañoo dajale woon fu boroom xam-xam nekk ci wàllu langue ak xalaat ay penseur ñëw ñu toog ñu ne nañ ràbb lu mel ni alxuraan tamit du tax ñu man ko te ba loolu defi la ba tey kenn mënu ko muy téere boo xam ne bi mu meloon tam ba noppi nga xam ne dafay àtte jamono tey ah ndax tey loolu moo na mel noonu ba noppi di passé di xewi. Mm-hmm. mais nekk na loo xam ne du xewi. Mm-hmm. noonu mu mel ne xam ne noonu lay àttee jamono ji àttee sénération mm-hmm. yu war a ñëwaat ku ci nekk gis sa bopp. tax moo na ko bàyyi ba. lu waay neex def. lu waay neex soppi. waaye def na ko noo xam ne nee na man nag ñu ko garantil ba képp ku ñëw bëgg ci dellu soo demee da fekk kenn du ci mën a yokk dara kenn du ci mën a wàññi dara na inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu lahafizun man yàlla maa ko wàcce maa koy sàmm jox ñu garanti ndax sinon loolu ñun duñ ko fekk suñu génération bu ñu dikkee duñ ko fekk mais génération yi ba yowmal qiyaam kenn du mën a soppi ci alxuraan yokk ci dara wala nga wàññi ci dara kon nag téere la boo xam ne. ñun dañ ci am responsabilité. baax a baax alxuraan dana wa la dikrun lak wa li xawmika wa sawfa tusaluun alxuraan a ngi nii yow yeneen bi yaa ak saw nit mais yéen a gàddu responsabilité bi gis nañ leen ko laaj ëllëg nu ngeen ko dundee ak nu ngeen ko doxalee woon kon téere la boo xam ne wax nga ko sànq koof ku dund dundin wu dëpp wut ak lam lay digal ak ji la ko tere. Mm-hmm. sa dund lu xaalis bi bari bari lu développement bari bari. du tee mm-hmm. ngay dund insécurité. Mm-hmm. du tee ngay dund itam ak jaaxle fi du fi du dem. Mm-hmm. mooy wa man yaxsu an sikri rahmaan. wa man wa man aarada an sikri fa inna lahu maïshatan danka. ku ko fi bàyyi ah dund gu tiis rek. ngay ngay kii tool gis nañ ko. tey ñi nga xam ne dañ fee bàyyi alxuraan ci avancement bi ñu avancé tey. ci wàllu technologie ci wàllu xeeti développement ci wet yëpp mais teewul. indil na leen ci xeeti tardement ci comportement ci jikko ci insécurité ci loo xam ne ni toujours ñu ngay férféri lu tax dañu fi bàyyi mhm. alxuraan wa ñax su an sikri rahman nu qayid lahu saytaan fa huwa lahu qarin mhm. ku dund dund koo xam ne associé woo ci alxuraan ci sëg dund faw saytaane moo lay plan mhm. mooy nekk sa xarit mooy nekk sa conseil technique te inna sheytaan lakum aduwwun mubin fa may dugal du baax kon alxuraan dafa am solo mu yoo xam ne ni ko suñu borom waxee wa nunazzilu mina alxuraani maa huwa shifaa wa rahmatul mu'minin wàcc nañ ci loo xam ne daf lay ni sifa daf lay dafay saafara jàngoroy société bi yëpp tey ja li ñuy wax fi yëpp mais bu buñ fekkoon tënku woon nañ ci alxuraan tënku woon nañ ci dëgg ci suñuy àtte dégg nga tënkoo nañ ci dëgg ci suñuy xalaat tënkoo nañ ci dëgg ci sisma yi ñuy def ci nit. Mm-hmm. mais buñ ci buñ defoon loolu kon lii du ñun sax fii ñu te toll duñ fi toll. nit ñi di jaaxle. nit ñi di jaaxle ndax lépp day nekk dëgg. dëgg la su boobaa mm-hmm. dafay nekk jàmm. Mm-hmm. kon alxuraan ab julit wul toog vraiment di jël beneen xalaat. bu nit xalaat. dama leen jox naa la ko ay misaal. xëy na répétition wala boog di baamu ay wax borom xam-xam yi jàng dañuy dafa bokk ci xëy na façon mu jàngilin. waaye wax naa ne la sëñ ab sëñ sëñ Mourou sa téeri sa sa sa portable bii nga jënd. dégg nga. di ko jëfandikoo. mais bi nga koy jënd am na benn kayit buñ ci boole. ne soo bëggee téléphone bi mucc. nii nga koy jëfandikoo. option yii ci nekk pour nga man koo jariñoo lii lii lii lay bañ lii lii lay bañ soo bëggee batterie bi diire defal nii soo bañee mu explose ci sa kaw wala mu yàqu defal nii mais noonu alxuraan noonu la mel par rapport ak adduna ci ni nga ko junjee sànq ci mbooleem fànn yi yëpp ci adduna nag laa wax ci fànni xam-xam yi dégg nga par rapport ak ni ci nit war a jëfandikoo ñu booy la alxuraan ne la man yàlla maa bind adduna te suñu borom mi bind adduna nit bi muy ñëw adduna dafa fekk lépp pare fekk na fi géej yi jant bi weer wi lépp fekk na fi népp mu pare yàlla na ko fi cëpp jox ko benn catalogue ne ko sawaay fii kat boo fi nekkee del dundee nii sa environnement bi dee ko manipuler nii ak li la wër. Ah sinon. Mhm. dana explose kaw nga dee. Mhm. wala yow nga yàq ko. Mhm. te naa ko ba tey. Ah ñun indiwuñ ñu fii ngir adduna yàq ñu. mais indiwuñ ñu fi itam ngir ñi ngir ñu yàq adduna. dafa wala si dafa suñu borom nee na wastaamarakum fii daf ñu indil fii ci àdduna ngir ñu suus ci suus yi daf ñu ciy bind indi fii ngir ñu dundal ko mhm. mu développé suñu suñu suñu lépp am developpement mhm. loolu nag munuñu ko am te jëluñu catalogue bi nga xam ne mhm. ki bind machine bi mooy àdduna xam nuñ ko war a appliquer nuñ ko war a jafe jox ñu ko duñ ko liir ngir xam xam ñun fii nan lañ fa war a nekkee suñu diggante suñu digg suñu borom suñu digg environnement bi lépp ñu mën a nekk ci jàmm àdduna bi tam ñëpp nekk ci jàmm ëllëg suñu borom tam ah. dajeeg moom ci jàmm am solo jërëjëf jërëjëf eh, sëñ Abdou Salam Dieng jërëjëf it eh, imam muy kon lu am solo ay ndénkaani ci wàllu alxuraan ak nin ko war a eh, jàngataate bu baax a baax baax ak nin ko war a téye ak nin ko war a toppe nu dugg ci bi beneen bunt bi ci topp mooy xadiisu bés bi sëñ Abdou Salaam na xadis nga ñuy laabire tey. bon xadis bi de. xadis la boo xam ne dañoo wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa wax ne. inna jibril axbarani anna ummati muxtalifa. nee na jibril moo ñëw xamal ko ne ko. sa xeet bi da bu ñu demee si kanam. danañ wute wute yu baree baree bare. Hmm. kii dana jaar fii jaar fii kii jaar fee kii jaar fee. yonent bi ne ko waaw kon boobaa famal maxraj kon ñu bëgg a mucc ñoom boobaa nan la ñuy def mu ne bu boobaa kitaabullah jël leen téereb suñu borom bi ñi nekk ci alxuraan rek ñu teg seen tànk ci alxuraan ñooñu ñoom ñoo mat a muy wax joo xam ne bu fekkonte nañ saxaba la ko waxaloon ñoom ñoom ñoom gisuñu ko waaye ñun moom jamonoon te nañu lool. Hmm. li arab di wax waaqi amal muus loo mën a teg sa loxo léegi mooy lii moom kenn ku ne si ñun gis na tey jii jullit yi wuute gi ñu wuute. Hmm. am réew rek. da nga si mën a gis ay wuute yu bëree bëree bëri. Mhm. si waat si su lii dex day laal pas-pas sax. Mhm. am na ñoo xam ne sax eggatul si foroñ yeeg kii si asul ci si bànqaas yi mais daa dem sax bay laal usul yi. Mhm. nga xam ne dañuy wuute si loolu nag nee na li si musle mooy dellu si alxuraan. alxuraan nañ ko xool bi muy doog a nga xam ne dañoo amoon ay xeet rek te noonu woon lislaam Abu Sufyaan day nettali ne dafa am am njëkk mu ñu defe woon ba ñu demee buur ba fa nekk woolu leen daan ne ki ma dégg ne day woote woo ak yonent foofu ca Màkka kat moo ko gën a jege ci yéen ak mbokk Abu Sufyaan ne ko man te boobu Abu Sufyaan duggagul ci diine mu ne ko waaw koo kii di di leen woo ci ak euh, yonent ndax moom Euh, bokk na si ñi gën a tedd si yéen aw askan wala sa ña gën a suufe askan la bokk mu ne ko waaw askan moom sa ña ko gën a rafet la sa wax dëgg yàlla am na askan mu rafet ñu ne ko waaw moom loolu muy wa woote la muy wax muy alxuraan ji jubla wax ndax am na kenn ku ma wax lu mel noonu mu ne ko déedéet wax jam fa andi day xamuñu ko wax joo xam ne daal kenn mus sa wax wax ju mel noonu muy alxuraan ne ko waaw moom kooku ndax xam ngeen si moom wax lu amut wax muy deñ mu ne ko déedéet kenn xamul si moom wax muy deñ ñu ne ko waaw ndax moom dana wor mu ne déedéet kooku kay du wor mu ne ko xam ngeen si maamam ñoo xam ne ay buur lañ woon wala déet ñu ne déedéet xamul xamuñu si woon koo xam ne benn maam la boo xam ne buur la ñu ne ko waaw mu ne leen waaw lan la leen digal mu ne lii la ñuy dugal yi ko ya'murukum qaala yaqul yaqul u'budullaha wahda jaamu leen yàlla moom rek moom rek. xam nga jaamu yàlla boo sa boolee dara rek moom ñàkk kaa jaamu dañuy yem. leen yàlla moom rek ndax moom doo nga mat a jaamu. yàlla doo nga mooy buur boo xam ne soo ko jaamu mu amal la njariñ soo ko jaamuwul gis lim lay lor. da koy gis fii gis ko fañ jëm. kon mu ne jaamu leen yàlla moom dong lañ sunu borom moom lañ yonent bi sallallahu alayhi wax ne nañ koy def. wala tusriku bihi shay'an bu leen jël cërub yàlla di ko jox cërub doomu aadama doomu aadama ak lu ma xamam kawe kawe na yem ci doomu aadama sunu borom moom ñu teg ko fa mu war a teg mhm. balance boobu lañuy ñuy natte kenn du jël cërub suñu borom di ko jox cërub doomu aadama mu daane itam wax nañu itam am na yu ñu tere watruku ma yaqulu abaakum li seen bàyyi di wax ci jël ay yàlla yu bare ku mel noonu yéen baleen ko bu leen ko waxati ak wax ju ñaaw hmm. di leen julli wa yamana bi sidqi bi salaati wa sidqi wal afaaf wa silla nee na nañu itam ñu am ay jukko yu baax gannaaw bi ñu digalee jaamu yàlla ci julli gu mel noonu waaye nee nañ dëggu ci ay wax hmm. dëggu ci ay jëf ba pare itam digal nañu afaaf mooy ñu fegu fi jaambur li sëñ Tuubaa daan wax ne shay'ul ghayri laa taqrabu daray jàmbur bu leen ko jege ak doylu la yàlla wërsëgale nga yem si te jëm sa dund sa dund. Mm-hmm. bañ a fi jàmbur. waaye wasila jox ko ak bokk kon boo ko toppoon yu baree bari la waaye kii moom bi mu laajee yii rek daa daal di dagg waa ji ne ko laaj naa la nga ne ndax dafa bokk si askan. wax ko mu ko ah, ab yonent daawuñ ko tànn si borom askan wi suufee yi. Mm-hmm. waaw laaj naa la itam ne la ndax moom. lii muy wax kenn daana ko wax ñu ne nga ne ko nga ne déedéet nga ne yonent buy ñëwee des na ko jox ab téere kooku kon li mu neew ab yonent la ba léegi jàdd gudd bi hmm. wax nga ne laaj na la ndax dana wax lu amut nga ne déedéet loolu itam ci jukkoy ab yonent la mu ne ko ndax dana war mu ne déedéet nga ne loolu itam ci jukko ab yonent la hmm. noonu la ko toppee ba ne ko bu fekkee li nga wax am na nguuram gi dana agsi fii dana nangu ji si fii Abu Sufyaan moom keroog la tàmbalee xam ne. doonte du gudd si diine it. alxuraan <laughs> maanaam sunu borom. <laughs> moom moom yee na ko ci ñam gëm. mooy li naan li gars yi naan alxaq ma shahidahul aada nee dëgg dëgg dëgg dëgg boo koy xool mooy la noon ya seere. Hmm. li li ni sëñ Tuubaa ni ko noon yi seere la noonu yim jamonoonteel niñ ko seeree la ci baaxam ak mhm. ak nekkam ci yoonu njub mhm. loolu itam da koo doon si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. kon loolu li liñ ci rek mooy bu fekkee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yéen kat da ngeen dem ba wuute ji wuute gu yi baree baree bari te loolu wute googu moom ñu ngi koy dund nee nag ki si ki ki mën a mucc yéen mooy ki teg loxoom ci alquran kon alquran mooy téere bi nga xam ne moom la tuddi sëñ Tuubaa tuddi al urwatul wusqa fa mumsikuha mhm. mooy téere bi nga xam ne nee ku bëgg a am leer ku bëgg a amum njub mhm. jàppal si alxuraan mhm. alxuraan nag nañ ci jàpp mooy da koy déglu ci lépp lu mu lay digal ko def lu mu lay tere nga di ko mm-hmm. Mm-hmm. solo la jërëjëf euh, sëñ Abdou Salam ñi lay sant bu baax a baax euh, ku bëgg jub rek da ngay jàpp kon ci euh, alxuraanul karim waaye li ma doon wax léegi rek imam muy nit ñi dañ ci ñoo xam si bëgg nañoo jàpp ci alxuraan waaye pour ñu jàpp ci alxuraan comme que dañoo mel ne man seenum njàng soriwul faaw dañuy déglu diw mu ne alxuraan lii la wax boo lëggee nga déglu sëñ diw mu ne alxuraan aay beekat niñ leen ko firale baaxut nii la ci alxuraan lii la ci yàlla jublu kenn déedéet nii la ci yàlla jublu nga xam ne loolu tamit bokk na parfois ci li nga xam ne day tax du mën a day réerale nit ñi ndax daanaka boo xoolee euh, firi yëpp ci benn balluwaay lay jëm muy fexe ba nit ñi jub nit ñi baax waaye nit ñi tamit ci am ñoo xam ne dañuy topp seen bakkan maanaam tey buñ fu ñu gis fu gën a yomb rek foofu la ñuy potoxlu daal di daal di daal di dem foofa ndax dañuy jàpp ne xëy na foofu moo gën a woyof wala moo gën a yomb wala pirine wi moo leen gën a arrangé wala pirine wi dafa xaw a diis tuuti yu mel noonu euh, kon dafay mel ne euh, yonent bi salaam moom fi mu tegoon saxaaba yi mooy li ko suñu salaam waxee léegi aay bu wàcc rek ci saa si mu fexe ba dugal ko ci ñoom ñu jëfe ko laata ñuy jàll ci beneen ci beneen ci beneen aaya euh, fii tamit ñu gis ci ci ci xadis bi ba tey euh, que ni euh, bu fekkente ne nit ki am na ak settantal dëgg dëgg dëgg dëgg am na jarul muy jàng alxuraan jëpp waaye am na yenn aaya yoo xam ne si boo ko jàngee rek dana xam ne lii kat mooy li nga xam ne ci la war a tegtaloo ngir mën a defar àddinaam waaye defar tamit alaxiraam léeg-léeg mel ne dafay xaw a metti wala dafay xaw a diis wala nga xam ne koo xewoon léegi bakkan Euh, day xeex il faut nga xeex ak moom pour mën a jëfee li nga xam ne loolu alxuraan wax daf ci am loo xam ne si daf lay arrangé lool neex lool ndax bashiran jey tax am ci loo xam ne si day xaw a metti muy naziran ji kon ñaar yooyu bu dajee ci doomu aadama faaw muy xool li nga xam ne moom mooy defar bakkanam di defar intérieur am euh, te loolu léeg-léeg dana xaw a metti nga su ko defee muy jéem a topp ci loolu te loolu amu ci lenn loo xam ne si lu génn lu génn lu génn alxuraan waaw jërëjëf euh, sëriñ Modou. Mhm. jërëjëf sëriñ Abdou Salam. Mhm. xam nga waxoon naa la sànq ne ci fi may daaneel. Mhm. wa nunazzilu mina al-Qur'ani maa huwa shifaa. wa rahma maa huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. suñu borom nee na wàcc naa ci alxuraan loo xam ne dafay saafara. garab la. Euh, gis nga garab. du neex. waaw mun na neex mais mun na naqari. mun waaye nag boo gëmee ni day faj. te nga gëm na jàngoro ji na ci yaw mun na la faagaagal. Mhm. te jàngoro yooyu nag bu faagaagalee nit. da koy rey tey rey ko ëllëg. Mhm. lay rey tey da dugal la sa wàllu yas billah ndax mhm. jàngoro yi biir la. comme ni ñuy faj a jàngoro biti. sa doom. sa bopp. ci benn cadre bi nga wax muy muy basir ak nazir. ci sa bopp. bu njëkk bañ daan naan benn garab bu tudd niwakin léegi amatul. <laughs> mais wex na weex goo xam ne. wallaahi waaye nag boo ko waaye naan même boo dee mag. da fexe ba naan ko te kenn du la ko gax ci lu wér bu dee sa doom la booy téye bakkan ak kii da fexe ba am naan ko lu mu weex weex weex. Mm. ndax da nga xam ne sifaa la dafay saafara. Mm. di nga ko nangoo jariñoo mais danga nga force sa njaboot. ñu jariñoo ko. Mm. ndax doo bëgg ñu wéradi. wéradi saa yi waxuma wéradi bàcc ngi ndax su boobaa. Euh, wér-dig bëccëg gi soo ñëwee. waaw ah. jikko yi yàqu yaa yooyu doo ci mucc. Mm-hmm. weesu naa foofu. Mm-hmm. nit dinañu dem sax xola ba di ko amputé. Mm-hmm. mooy dem bay nañ dagg ab cëram benn ci cëram ngir mu mucc mais mu d'accord. Ah. ndax xam ne loola ci la ak wéram nekk. ñëwee nañ ko xotti muy opération. mu d'accord ndax mën a dindi jàngoro yi. mais jàngoro yii alxuraan itam. ni nga muñee jàngoroy sayir mu naqari nga di ko muñ xeexee sa bakkan ngir xam nga la ca gannaaw xotti ga ak la ca gannaaw naan lu weex la noonu nga war a gëmee alxuraanul karim ci ne la ca gannaaw jëf lu jëf lu dëppuwut ak bakkan ba mm-hmm. loola lam lay jural gis nga basir mooy lan mm-hmm. mooy motivation mooy lii boo ko defee dana lañ la ci récompenser dañ la ci fay mm-hmm. dañ la ci jox ëllëg lii ak lii ak lii. lan mooy nazir xupp gi mooy moytu lii. lii ko soo ko defee lii la ci fekk lii la ci fekk. lii la ci fekk am na ñoo xam ne ñoom bëgguñoo dégg rek lu dul lu neex. Mhm. lu leen di motiver rek mais motivation boobu baax na trop. Mhm. te mooy mooy yaakaarloo nit ki lu tax nit ki yaakaaram dolleeku. Mhm. te yaakaar waaye nag noonu yaakaar yaakaare noonu la ñuy bëgg itam muy ragal. ndax ñaari laaf yooyu. la ab julit war di naawee jëm ci boroomam. la war di doxee jëm ci boroomam. laafum yaakaar yàlla. Mhm. ba li muy diglee mu di ca lu ëllëg mu am pay mhm. waaye laafum ragal yàlla ci moytu li muy tere ba bu ëllëgee du dajeeg meram suñu borom bi tabaraka wa taala mhm. donte su gënee jege yàlla nag ci dee bëgg nañ. laafamu yaakaar mi gën a dëgër. d'accord dégg nga. Mhm. kon loolu moo ci nekk. Mhm. waaye sëñ Abdou Salam dafa wax sanq ni sëñ Touba ni mu tuddee alxuraan mooy al urwatul wusqa loolu alxuraan sax moo moo njëkk na ko wax. Mhm. waaye sëñ ci biiram dam da koy feddali. buum googu nga xam ne mooy buumu connexion. connexion mooy buumu jokkaloo. gi dox di gi yàlla yoor jaam ñi ñu mën cee téye bu baax. ngir seen digg ak seen borom bi tabaaraka wa taala di man di jokkaloo te loolu mooy avantage ab jullit ci dundam. fexe ba diggam ak boromam du dagg ndax noonu la ko yàlla bëgge loolu nag buum googu nag mooy alxablul matin mooy alxuraan fekkee kaabal la gu ñuy kaabale mm-hmm. ci diggante fii réseau bi di jógee ak fa jëm mm-hmm. fa fa mu jógee mooy suñu borom fi mu jëm mooy doomu aadama yi. kon kaabal boobu réseau boobu mooy alxuraanul karim. alxuraanul karim alxuraan jooju nag. Euh, moo tax suñu tubaab di wax gës gës bu naan ak karim bi saaril li ciy ne ci li ciy ne ci teraanga kenn ku mënum ak karim bi bi fii hudaahu wa sabab wala boog fii sababu wa sabab yëpp am na. nee li ci ne ci li ci ne ci ne ci alxuraan mooy njubam gi moom suñu borom tabaaraka wa taala mm. ak it mooy mooy lu jub. maanaam lu nga xam ne yoon wu jub yi ngeen wax sànq. kon alxuraan foofu la ko sëriñ bi tegoon. alxuraan jooju nag suñu borom dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne. inna laa yarfau bi haasal kitaab aqwaman wa yadaau bihi al yàlla kat dina yëkkati ci alxuraan aw nit. ñun ñu ci yëkkatee mooy ñooñu nga xam ne ña ngay jéem a def li sëriñ Abdou Salaam wax sànq te nga junj ko. Mhm. te mooy jéem a xam lan moo ne ci téere bi ci ay digle ñuy tekki seen tànk. Mhm. lan moo ne ci téere bi ci ay tere ñu mhm. jiim ko moyu. ndax lool rek la. dégg nga li ci ne ci waaree ñu jiim ci waaroo. am ne kon yàlla dana yëkkati ci téere bi aw nit. Ah. waaye dana ci sippi daraje aw nit tam. ndax wan ko ginnaaw ak ñàkk koo fonk ak ñàkk fonk njoñ alxuraan. ndax nit tam dina mën a dina mën a bañ a jàng ak rëcc ko. ak fenn fi waaye nag mu ñëw nag mu nekkoon kon li ma rëccoon li ma rëccoon naa ko jima dabu ci naka laay fexe ba euh, daara ji ma dendal masalan man am naa ñaari saabu. mu mën a joxe waaye aw saabu sax aw ma dara waaye naa dem fete fa sax ca yëre dong yi. Mhm. fóotal leen fóotal doonte ñaari mos laa fa a fóot ma fóot ko. Mhm. ci sa kem kàttan bokk nga ci ñuy dundal alxuraan. dégg nga. Hmm. te su boobaa bu ñuy lim waa alxuraan dañ la cay boole. Hmm. mënuma day eh, am lu ma tardé lu bari wala tardé ma ko sax am naa ko. Hmm. waaye xaaral ma jàpp ci dundal alxuraan gi benn eh, liibaru ceeb bi laa mën a yokk ki sama ci li ngir yàq ko yóbbu ko ci daara yi. ma di ko def. wala mbub mi laa man loo man rek baataabalu loolu lépp mënoo ko sax. mais sa làmmiñ rek nga ciy wax rafet ci daara ji. Mhm. ak di ci xemmeem loolu nit ñi. Mhm. ak di def sa participation ci lépp loo xam ne dafa nga ne luy jëmee daara ji kanam la. loolu lépp xeeti xeeti xeeti xeeti jàpp ci daara ji la. Mhm. te boo ci jàppee rek li ya li yonent wax ne euh, suñu ne ne ne sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne euh, inna lillahi taala euh, ahliina min annaas. qaalu yaa rasulallah man hum qaala hum ahlul la ah, hum hum ahlul quran mm-hmm. ahlul lay hum ahlul quran hum ahlul lay wa xaasati mm-hmm. nee na yàlla am na mm-hmm. ci suuf si ci nit ñi aw nitu boppam yooyu saaba yi ne ko ñooy ñan la mun waa alquran ñooñ ñooy ñooñ yàlla ñooy ñi gën a jege yàlla ñooy ñooy ñooy ñi nga xam ne ñooy ñooy yàlla jagoo ah. mais ñu ma alxuraan yooyu nag dëgg la ñi jàng alxuraan la ak ña koy jàngale waaye ña leen cay jàppale dugale nañ ci biir ak façon boo ko mën ni ma ko waxee woon sànq. kon loolu itam bu ñu ko xeeb. Mm-hmm. Serigne Touba. Mm-hmm. dundam gépp alxuraanul karim la. Mm-hmm. dundu bi lépp alxuraan la xasidaam yii nga xam ne li ko ci suñu borom euh, dëxëñal. ci ay jagle ay jagle ci biir. dangay gis ne li ci gën a bari sax mu xayada bi ayat alquran yi da koy tënk sax ay ayat alquran nga xam ne moom fi mu ko fekkoon alquran ak fi mu ko yóbbu tey fi ñu avancé tey ci ci ci ci ci ci bindu ko jàng ko. nga xam ne tey boo ci marché bi mën nga jënd fa vingt léegi kaamil yoo xam ne. lépp. ak njabootam ñoo koy bind. Mhm. même njabootam boobu mos a def fekk kaamil sëñ Fallu a def. Mhm. fekk fa kaamil sëñ Muuru Mustafa. Mhm. dafa fekk ay kaamil ay njabootam yi fi mujj yi fi nekk nii ku mel ne ay sëñ Abdul Ahad Soyibu. yàlla na ko suñu borom dëgëral te sàmm ko te wéral ko. ak yeneen nit yoo xam ne sëñ Xamidun Lo. njëng yàlla na ko yàlla yokk leer fa mu nekk. yooyu ñoo ngi xam ne loolu ay nono la yoo xam ne liñ fi liggéey ci alxuraan ngir bëgg tey nga ñëw Tuubaa ñooy la tey yaa Euh, plus de nangami mille. daara ah nga xam ne tey ñun. mille mille cinq cent mille cinq cent daara. waa léegi xool rek <laughs> ñun man man damay dem ci tari daara yi. Euh. daara yi damay dem ci tari yi. Euh. ñenn yi dañuy présenté fukki fukki fukk ñii trente ñii quarante. ñii ñett sala salon daara ji ni mu toll. mais xool la yow mille mille mille mille cinq cent daara. imagine daara bu nekk bu doon tariloo ñaar yi. bu doon tariloo ñaar sa fait trois mille. trois mille personnes. ñuy mémoriser ah par an. par at ñett ñetti junni yu mën a mokkal alxuraan par weer par par at loolu loolu loolu boobu liggéey ah, ah. <laughs> te loolu sëñ sëñ Abdou Salaam ji ñoo ne ko sànq hmm. fardu kifaaya la ñi ci taxaw ñoo ko wàcceel ña ca taxawutoon ba àgg foofa hmm. kon ñooñu war na leen jàppale ndax ki la tee na ci naaj wi kat hmm. ki la tee na ci naaj wi ki la taxatoo ci kër gi na ci naaj wi ah waaw mm-hmm. <laughs> ah, war ko fonk war ko fonk de. Mm-hmm. a baax ndax bu fa nekkutoon yaa fay nekk. wallaahi wala boog yéen ñëpp ngeen am ànd nekk. am bakkaar bi ci lu wér kon alxuraan daal. Mm-hmm. Euh, mi ngi noonu. Euh, nañ ci gën a dellu. moo tax euh, gis nga suñu sang si ndeysaan. Mm-hmm. lu yëngu rek. dellu nañ ci alxuraan. waaw ci lu yëngu muy seen delluwaay boo xam ne. Mm-hmm. Euh, ci lépp lu mën a doon. Mm-hmm. mooy seen delluwaay ndax loolu mooy seen ndono. dëgg la ndono li dëgg la te sàmm nañ ko tam daal. dëgg la ci lu wér jërëjëf jërëjëf imaam jërëjëf it sëñ Abdou Salaam ñu ngi santaat bu baax a baax mel ne alxuraan daal war nañ ko fonkaat bu baax gën ko fonkaat fii képp ku di jullit rawatina nag koo xam ne da ngaa sa yaakaar ci Cheikhul Xadim amaat beneen cër ndax sëriñ bi euh, alxuraan ko gënaloon lépp euh, te it nag euh, li fépp fu masaan sànc dafay def daaray kaamil dafa daaray alxuraan jël nit teg fa muy jàngal ndono loolu aussi moom mooy wéy ba léegi moo waral képp koo xam ne si Touba néew na loolu nga dëkk ci quartier boo xam ne daara déndoog daara a ñoo xam ne si daar daara leen di déranger daara da leen di déranger gone yi dañoo dañoo reew ak gone yi dañoo salti ak dañoo mën a def nii ak dañoo mën a def naak yoo xam ne si waaye da nga koy da nga koy muñ ni koy muñe noonu nga war a supporter it daara ci xam ne dañoo ñëw ngir jàng soo rafetalee sa diggante ñoom am na ci ñoo xam ne danañ mokkal dem ëllëg ñu tekki nekk leneen dellu siwaat ne amoon naa fi ndey daara wala ñu dellusiwaat ne man kat kër sàngam danaa fa jaar nuyu leen ndax ba may ne ci daara ji dama fa daan jaar defu ñu di ma may ndox wala dañ ma daan fóotal sama yére wala dañ ma daan may ay desi ceeb ak yu mel noonu yooyu yëpp kon yu mat a bàyyi xel la di rafetal suñu diggante gone yi lu dul dara humanisme nite rek ak nite rek dalaa war a man a may nga man a supporter gone yi xajoo leen di leen dimbali ak di leen euh, di leen yaatal mu ngoog euh, waxantuma la ak nag tuyaaba jën ci am ñu jàll kon ci bi ci topp muy arminaat الحمد للحق المبين ngeen jëf yéen ñi seetaan ak ñi nga xam ne ñu ngi déglu ci rajo bi 95 point 6 FM 1959 la ñuy dem ñaar fukki fan la woon ak ñett ci weeru euh, février ci atum 1959 Euh, ci la ñu sosoon euh, lu ñu wax euh, cour européenne des droits de l'homme muy bërëb boo xam ne si fa la ñuy saytoo ak di fa sàmme àq ak yelleefu doomu aadama yi ca Strasbourg ay yaay tubaab yi ñoo tardé waay 1959 lañ koy so la ñuy soog def boobu <laughs> fekk na alxuraan def na ko junni at ak nangam lu topp ñoom ñu koy soog a def 1959 nga xam ne boobaak léegi yàggul seen cour bi nee nañu mm, ab juridiction la maanaam ab bërëb la boo xam ne dañ ko taxawal ci 1959 conseil de l'Europe moom moom moo ko taxawal ngir rek muy sàmm ak euh, saytu li nga xam ne mooy àq ak yelleefu euh, doomu aadama yi yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir réew yi nga xam ne dañoo bokk ci convention européenne de droits de l'homme dafa am convention am cour convention mu moo gën a yaatu ñu wax ne nag euh, compétence am maanaam ay ay dooleem fi mu yegg dafay yegg rek ci lépp loo xam ne si lu laal wàllu jëfandikoo doole la maanaam lu mel ne àq ak yelleef lu mel ne droit ak yooyu euh, te ñu war koo doxal ci ñi nga xam ne si ñoom ñoo nekk ci espace boobu ñu ne nag kon euh, cour boobu muy bërëb boobu kon képp koo xam ne si gis nga ne say àq wala say yelleef salfaañe nañu ko bu la neexee nga mën ngaa am feneen foo jaar ba mu yegsi ci moom waaye rawatina ñi nga xam ne si ñoom ñooy état yi euh, ak képp koo xam ne rek yëg nga sa bopp ci ne daal dal nañu sa kaw wala salfaañe nañu say say àq ak say yelleef ñu wax ne tamit bërëb boobu ba tey tey euh, mi ngi dox rek ci euh, fi nga xam ne moom mooy Euh, ci ci ci permanence su ak siège am euh, la ko dale ci 1er euh, novembre ci 1998 ñu taxawal ko ci Strasbourg Strasbourg nekk ci France ci benn batiment bu mag boo xam ne benn architecte italo-britannique bu tudd Richard Rogers moom moo ko defaroon fukki fan ci weeru decembre ci atum 1900 ngir dellu ci taarix tuuti rek 1948 ci la ONU daal di adopté woon déclaration universelle des droits de l'homme l'ONU nee na moo jiitu tey gis nga ko mooy ba tey tardé gim tardé 19 1948 bi ñu génnee ci deuxième guerre mondiale ba pare li ci faatu ci ay millions ngi doomu aadama ngay soog a taxawal ne nit ñi am nañ ay ak yella fekk alxuraan moom waxoon na ko bu yàgg-yàgg euh, ñu wax ne kon euh, ONU moom bi mu taxawalee la déclaration universelle des droits de l'homme la mu ci jublu woon rek moom mooy sàmmat ak ak yelleef euh, képp koo xam ne si kuy noyyi la maanaam bépp doomu aadama ngir nag daal di doolelaat li nga xam ne rek moom mooy le droit international ak protection des personnes maanaam aar ñi nga xam ne si ñoom ñooy 1949 conseil de l'Europe daal di créé ca Londres muy ci Angleterre li euh, euh, nga ñi nga xam ne moom la ñu tuddee les membres du conseil maanaam membres yi nga xam ne si maanaam nit ñi nga xam ne ñoom la ñu war a fal foofu muy borom xam-xam yi euh, daal di considéré wax ne nag kon déclaration bu ONU bi dafay dafa dafa dafa gën a yaatu waaye ñun mën nañoo créer leneen loo xam ne si xëy na moom mooy gën a seere nga xam ne bu ñu àtte gi tëwee ñu soog koo jàllale ca bërëb bu mag ba kon loolu la ci jublu woon ba ci boo ñëwee ci Afrique sax ñoom it am nañ seen bos boo demee Asie am nañ seen bos foo dem am nañ seen bos boo xam ne sunu at su lee seeni i atte ci biir réew ma fii Sénégal suñuy atte yu ndaw ndawaan fii lañ koy atte waaye am na lu njombe lu nit doon def lu rëy loo xam ne si dee su ko attee fii des koy yóbbu ca kaw waaw fu mel ne ay euh, tribunal pénal international ak ak yu mel noonu euh, su ko defee ñu daal ko fay ñu daal ko fay atte nga xam ne kon mbir mi dañ koy euh, day xat buñ paree ñu di ko yaatal ndànk-ndànk ndànk-ndànk ndànk-ndànk ba yu gën a mag yi ñu soog koo yóbbu euh, foofa ñu wax na nag euh, convention bii nga xam ne si tëraloon nañu ko nee na kenn ku nekk am nga droit dund maanaam kenn wërta faat kenn kenn ku nekk am nga droit soo tooñee wala ñu tooñ la nga taxaw ci kanamu attewukaay ñu atte jox la say àq kenn ku nekk am nga droit ñu respecter sa vie privée maanaam sa dund gi nga xam ne xajaloo ci kenn sa digganteeg sa sa nafsu bopp képp la kenn ku nekk am nga ci droit te kenn waru ba bafoué kenn ku nekk am nga droit dund ci sa biir famille sa biiru njaboot te kenn du la xatal kenn du la bundu xataal kenn ku nekk am nga droit loo xalaat nga wax ko mooy liberté d'expression moo ñu rey nag ndax nit ñi yàpp jàpp nañu ne nga rawatina taskati xibaar lu nu xalaat rek da ko war a wax loo xalaat rek da ko war a wax même bu dee way wu këpp gaal sax da ko war a wax au nom de la liberté d'expression euh, am nañoo wax nañu tamit ba tey ne dala leen aaral euh, képp koo xam ne da ngaa am ay xalaat ay xalaat liberté de pensé hmm, de pensé euh, de conscience et de religion kenn ku nekk tamit lu nekk ci sa bopp sañ nga koo génnee hmm. kenn ku nekk it yoon wu la neex sañ nga koo tànn ci wàllu diine wax nañu ne euh, am na dama ciy jukki rek ay ay benn benn droit au respect de ses biens kenn ku nekk di am nga àq ak yelleef ci ñu sàmmal la say euh, sa koom-koom hmm? ak lépp loo xam ne rek yaa ko moom dafa dafa dafa taq ci yow nga moom ko loolu tamit bokk na ci ki nga xam ne si kon jàppoon nañ jàppoon nañ ko ci Euh, yooyu bokk na ci kon yu gën a siiw waaye am na yeneen yu bare bare bari yoo xam ne si euh, dolli nañu ko ci muy rek euh, ay àq ak yelleef yoo xam ne bëgg nañ koo jox nit ñi waaw ñu bëgg nañ koo jox nit ñi seen seen seen problème aussi mooy léeg nga gis ñu jël benn loi boo benn wala benn àq boo xam ne ñaan lii nii lañ ko ñu dawal ay at ñu ne faaw ñu soppi ko ndax jamono daa soppeeku bu dee alxuraan moom du def loolu la <laughs> mu jàppoon ba ba yonent bi saa sallam di ñëw ba léegi du ci soppi dara du ci changé dara waaye ñii dañuy jàpp dara dem ba mu yàgg ñu ne jamono romb na foofu waaw kon léegi nañ ko soppi ko defee ñu daal di koy euh, defaraat yooyu kon mooy wane rek ne euh, lu xelum doomu aadama defar dafay des dafay des lool te jamono da ko fay bàyyi waaye li seen borom tëral moom euh, ni imaam wax léegi rek maanaam la ñëwagut ak la ñëwoon ak li ñu toll lépp lay boole maasale atte leen lu ñuy wax euh, le cinq Coran est euh, transversal maanaam côté boo ko jëlee rek da koy mën a da koy mën a romb su ko defee ñu daal di jàll kon ci beneen bunt bi nga xam ne si moom moo ci topp tamit muy yi ñu war a wattandiku diggante tey ak suba su dee tey ci ñaari fan yi mooy euh, ñaari fan ci Sha'ban kon tey fattul alxames la mënees na cee daloo. ku bëgg daloo mën ngaa daloo ku bëgg it leewiku bu ñu ba julli tàkkusaan ba noppi fi nga toogoon di julli tàkkusaan bu la neexee mën ngaa leewiku wala sax ginnaaw bi tuuti waaw ah, rafet na lool ci leewiku bu fekkee ëllëg la nag ci àjjuma ji moom dafay fàtt baaxoowu ko woon nag moom àjjuma ma ne sonn na cee daloo bu fekkoon fattul waaye suba ñetti fan la hmm? kon des ci wattandiku ku ci ah, ku ci tukki ak ku ci tàggoo ku ci daloo ku ci fas ab sëy ko ci xarafal gone ku ci watu ku ci fas ab sëy ab ku ko ci yeggale euh, ko ci euh, sanc yooyu yëpp dañ koy wattandiku ci bisub ak ku ci tukki hmm? euh, yooyu yëpp dañ koy wattandiku ci bisub àjjuma suba bi ndax ñetti fan yi moom moo tax kon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ñetti fanu baraxlu hmm? ëllëg la su ko defee tamit waxtu yu julli ci Touba ak li ko wër su dee suba si dafay nekk ci 6 heures 12 minutes tisbaar gi nekk ci 13h47 takkusaan 16h47 timis gi mi ngi ci 19h15 gée gi mi ngi ci 20h26 maanaam 8 bu tegalee ñaar fukki minute ak juróom-benn 20h26 6h12 13h47 16h47 19h15 ak 20h26 loolu mooy waxtu julli ci Touba ak li ko wër. ñu daal di jàll ci li mat a xam ci téere Sëriñ Souhaïbou boo demee ci xëtum 90 page 90 sëriñ bi waxoon na la démb ne la. barki démb nee na la gane gi bu gone gi su woppee woppi tàngoor démb mu ne la gone gi bu dee waccu tey nee na gone gi bu dul nelaw guddi wala muy tiit ci ay nelaw waxuñu nag nga bëgg a nelaw nelaw sa tàkkusaan yow yaay ji ba doyal guddi jot nga bëgg a nelawal xale bi waaw te du du mën naa bañ sotti waaw wala xale bi nelaw tàkkusaan wala journée bi yépp mu nelaw ko guddi jot nga bëgg koo nelawal mën naa bañ a nelaw loolu bokkut ak ñàkk ay nelaw dafa am geneen xeetu ñàkk nelaw goo xam ne si normalut ci xale soo ko yóbboo ci médecin wax ko expliqué ko dana am tegtal yu mu la jox waaye si sëriñ bi laata ngay dem ca médecin moom am na lu mu la jox nga yóbbaale mu ne bu dul nelaw guddi wala muy tiit xale buy tiit aussi dafay far di am soo yam mu ne tërët yeew jooy nga ko am na lu koy tiital nee na nañ ko bindal lii takkal ko ko bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman inna rabbakum allahu allazi xalaqa samawati wal ardi fi sittati ayamin summa stawa ala al arsh yughshi layla wannahaara yatlubu xafiifan walchamsa walqamara wannujumu musaqaratin bi amrihi ala lahu alxalqu wal amr tabaraka allahu rabbul alamin duu rabbakum tadarruan wa xufiya innahu la yuhibbul mu'tadin wala tufsidu fi l ardi bada islahiha wa duu xawfan wa tamaan inna rahmatallahi xaribun min almuxsinin nga daal di ci teg law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la raaytuhu xaashan mutasaddian min xashyatillah wa tilka al amthal nadribuha linnaasi laallahum yatafakkarun huwa allahu allazi la ilaha illa huwa alimu alxaybi walshahada huwa arrahmanu arrahim huwa allahu allazi la ilaha illa huwa almaliku alqudusu alsalaamu almuminu almuhayminu alazizu aljabbaaru mutakabbir subhaanallah amma yushrikun wallahu alxaaliqu albaari lu asmaa lahu alasmaa alxusna yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard wa huwa alazizu alxakim damaa defoon ne foofu la waaye continué waat na euh, ba ci euh, maanaam jël na page bi yëpp daal page 91 bi yëpp jël na ko ñaan gi xaw naa gudd kon ndax mu ngi tàmbalee ci 90 ci digg bi ba ba ngay wàcc 91 ba ci suuf daanaka muy seeg soog a jeex mu ngi jeexee wala xawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wasalama tasliman voilà foof foofu ngay yem nee na kon lii ngay bind ñaan gi moom ngay bind ay laay alxuraan yu bari la nga bind ko ba noppi daal di ko koy euh, takkal hmm, daal ko koy takkal ab téere boo ko waxul nag foo koy takk ci loxo lay doon wala ci ndigg lay doon wala téerab dënn lay doon wala fu muy doon euh, waxu ko kon daanaka day mel ne foo ko takk rek baax na waaye neen daal bu dul nelaw guddi wala muy tiit ci ay nelaw nee na boo ko bindalee sunu borom mën na koo defal euh, sutura ba dootul dootul tiit kon mën nañoo daal di jàll ci beneen bunt bi ci topp mooy xasida ak bés bi jërë ngeen jëf yéen ñi seetaan ak ñi déglu ci rajo bi 95 point 6 ñu sant ñëpp di jaajëfal ñëpp ci yitte yi ak nemmiku ngeen ñu nemmiku saa su nekk euh, suñu Abdou Salaam gan xasida wala yéen ab jaat ngeen ñu laabire tey waaw <coughs> dañuy jukki rek wenn bayit hmm. su ko defee muy laytaayu waxtaan wi hmm. Hmm. sëñ bi si am mbindam daf saa wax ne huwa al kitaabu alladi man kaana qaadimahu zakka lahu al ilmu wal amalu wa chiyam muy béy boo xam ne nee na alxuraan a ngi nii di téere boo xam ne ku ko jóg di ko liggéeyal. ñett yi moom. yàlla daan na si defal ndam. Mm-hmm. da am xam-xam bu sell. Mm-hmm. da am jëf yu sell. Mm-hmm. da nga am jikko yu rafet yu sell. xam-xam nag bi mu koy jàngale. ca téere ba mu tuddee téere yu bari sax waaye boo jëlee masaalik. wax na ne xam-xam yëpp du yëpp am njëriñ. wax na itam ne jëf yëpp itam du yëpp am am njariñ am na yu ëppante ay njëriñ. Hmm. waaye kon ku bëgg xam-xam bu sell nee na bokkal si ñuy liggéeyal alquran. Hmm. te gëm alquran dafa bokk si arkaanul iman as sitta. Hmm. booy jàng si wàllu ngëm. dañ naan la dangay gëm yàlla waaye dangay ngay gëmaale téere yi dangay gëm yonent yi da ngay gëm malaaka yi noonu la la ko jàppale ba juróom-benn ponk yooyu jeex kon alquran ab jullit sëñ toog rek ne sama yoon ci alquran. bala ñoo ak si foofu sax sànq bi ngeen di wax ci sëñ Muntaqa bi ñuy wax ci xam-xam nuñ ko saxaba yi doon dundee ba nga xam ne nit ki da koy jàng waaye di ko jëfee loolu da yaakaar naa ne école bi sëñ Muntaqa ubbi léegi nga xam ne dañ siy jànge baa te dal keroog dal dal mu am solo yal ko yàlla barkeel ba kaang yu bari génn si mu ne nag dañ say jànge baa ba keroog nit kiy dem ba li alxuraan doon jàngale lépp masalan rek. nga xam ne bi nga baa ba keroog alxuraan bay jeex. lu fi nekkal si liggéey bi xam-xam ya lay gunge ba nga mën a xam loola. da say am. nga xam ne kon xam-xam ba du yem rek si nga jàng alxuraan bi kon kooku dégg na dëgg-dëgg li nga xam ne si ne moom mooy ne la yonent bi sallallahu ndax bañ ko laajee ne ko. ndax euh, alxuraan euh, koo xam ne dafa jàng alxuraan te jàngul xam-xam mm-hmm. ay mbiram mu ne ndax alxuraan dana jëriñ si antu xam-xam kon moom alxuraan xam-xam la ñuy boole. Mhm. Sëriñ Muntaxa yàlla defal ko kéemaan gu yi ndax dafa bokk si ñi nga xam ne. Mhm. mën nga koo wooye rek allazina yuballighuuna risalatillah wa yaxshawnahu mhm. wala yaxshawna ahadan illa allah waaye wa kafa billahi hasiba nee na moom ñooñu am na si aw nit ñoo xam ne dañuy jottali suñu borom ay ndigalam waxtu wen ñu ngi xiir nit ñi suñu jëfe ndigalal suñu borom waaye nag ñoom seen bopp dañ ko ragal wa yaxshawnahu boo xoolee si ñoom buñ la newut lii mooy seen métier da danga xam ne kii ko ragal yàlla mhm. waaye nag walaa yax saw na ahadan illa allah gannaaw bu ñu ragalee yàlla it amul keneen ku ñu ragalat nag ku suñu borom mhm. waaye wa kafa billaahi xasiba daane nag nit ñi nañ bàyyi xel yàlla mhm. gis nga mbiri àdduna yi ñu lëng ci boor yu nekk ba tax ñu mën a jël téerab suñu borom bi ne ko tegg fee ngir bëgg a dund suñ dund gu dund ndax du dund mënta neex sax boo bàyyee alxuraan waaye rek tañaxu bokk taasuf dunduk tañaxu laa ko tuddee dunduk amul alxuraan mooy dunduk tañaxu dunduk tañaxu googu nag fa muy nit ki mooy na xam ne wakafa billaahi xasiba nee na contrôle ak télé surveillant caméra yi surveillant yi ak appareil enregistrement yooyu lu si tubaab yi xereñ xereñ bukk teg yo suñu borom yor lu waaye def rek suñu borom enregistré na ko te bisi da nga toog mu lijjanti ko ak yow. Ah, amut kenn ku ñuy dénk dara ak lu mu ndaw ndaw lu ak lu mu rëy rëy. lu dul ne loolu am nga sa responsabilité te responsabilité boobu suñu borom dal na ko laaj. Mhm. kon nañu gën a nammaat suñu yitte. Mhm. ci jéem a dund alxuraan. Mhm. nañu nammaat suñu yitte ci jéem a xam taxa taalim yi nga xam ne ak maqaasid sharci yi nga xam ne moom la ñu alxuraan indi ndax alxuraan. daf ñuy génnee ci ak lëndëm. yóbbu ñu si ak bi mu ne huwa allazi baasa fi lummiina rasulan minhum lam sa teg mooy yatlu alayhim ayaatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum kitaab wal xikma ndax wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin kon li tax a moom ay maqaasid yu leer la mooy génnee nit ñi ci jafe-jafe àdduna yóbbu leen ci leer génne leen ci texe yóbbu leen ci texe génne leen ci suufe yóbbu leen ci kawe génne leen ci ñàkk a dëggu yóbbu leen ci dëggu mm-hmm. lu baax lépp kon alxuraan indi na ko mm-hmm. moo tax sëñ bi si gàttal mm-hmm. mu ne huwal kitaabu lazi man kaana qaadimahu mooy téere boo xam ne ku ko nekk di ko liggéeyal zakka lahu al wa wal amalu moo tax moom mi nga xam ne bi mu ñëwee dafa jël léppam def ko muy alxuraan sëñ Tuubaa kenn gisut fonkeel gim fonkoon alxuraan ku ko mas a fonkeel noonu alxuraan bëgg gim ko bëgg koo xam ne bi mu ñëwee pàgguteefu àddunam lépp nee na gannaaw yomal xayam kenn ku ne dañuy lay teewal nee lan mooy sa pàgguteef ah, loo fàggoo noo fàggoo woon sa àdduna nga indi ko jóor nee na moom bi mu gisee alxuraan mu bawoo fi yàlla mm. jaar si Seydina Jibril jëm jëm si yonent bi salaam salaam mm. la ko def muy pàgguteefam moo tax mm. ku xool am mbindam wala nga xool ay ay jëfam dara jiitu sa alxuraan moom la daan jàngulu moo doon doctoram mm-hmm. wax na ko fa mm-hmm. moo doon wëttalam mm-hmm. moo doon xoroto aynam moo doon làmpam bi muy leerloo mooy ak njubam si la ñaan yàlla jubale si ak njabootam. Mm-hmm. boo delluwaatoon ci émission boo xam ne da nga ko jël rek di jël ko diggan jagleel ko alxuraan ak sëñ Tuubaa. Mm-hmm. da sa gis ne moom. Mm-hmm. amutoon lenn loo xamee ne jiital na ko si kaw alxuraan. la waaw yemalutoon alxuraan ak dara. kon nag loolu bu ñu yàlla taw fee xale maalim yooyu. ak jëf yooyu mu bàyyi ko fi ndax da ngay dañ naan la daara ji moo ko samp. jàngalkat bi moo ko samp. nit ki bi mu ko bindalee alxuraan lii la ko jox. daan si daan jënd amul kenn ko mën a jàng si def sëñ Tuubaa te gisoo ne alxuraan am na si wàllu bu rëy rëy daanaka sax danaan dundam gépp alxuraan dëgg la dëgg kon kooku nag bu fekkee eh, am nañ mag ñu mel noonu sunum réew mm-hmm. te boo jeexoon si réew mi ñu baree bari mm-hmm. xanaa léegi mm-hmm. waaye ñu bare bari moom alxuraan lañ jëloon teg ko seen diggante léegi nag egg nañ si jamono joo xam ne nit ñi jàpp nañ ne njàng njàng leneen sax wala ne fi ñu jàng alxuraan yéen njàng yi tardé sa bopp la wala boo demoon ba mu bënn sax nga gas ko ba mu ba teen ba balla ba nga xam ne xam-xam yi day génn loolu yàq temps la. loolu kon am nañu. am nañ jafe-jafe jafe-jafe am nañ jafe-jafe bu baax a baax jërëjëf jërëjëf sëñ Abdou Salaam ñu lay santaat bu baax a baax a baax euh, ñu léeg-léeg sax ñu yegg ba ci maanaam danañu gëm alxuraan waaye dañ ko dul wóolu ndax da ngay jàng alxuraan wala nga yore kaamil bi nii nga fekk commerçant mu toog ci biirub euh, biirub biirub biirub place am su boobu jóg mu nekk dana jàng ñetti sib wala ñeenti sib baax na naam waaye lañ ko wax ca peese ba bu fa yeggee Euh, du ko du ko du ko jëfee nañ ko waxee ca ca kii kii kii loolu tamit day bàyyi xel bu baax a baax. Mm-hmm. lañ la wax ci njaboot gi. Hmm? boo ci yeggee ba jàng ko ba noppi boo yeggee na nga fexe ba jëfe ko. dégg nga li la wax ci soxna si boo yeggee ci na nga ko ba jàng ko ba noppi boo yeggee na ko jëfe ak yeneen ak yeneen bunt yu bëree baree baree yoo xam ne kenn mënu koo lim sëriñ bi nag loolu la bëggoon euh, nu dugal ko ci sunu dund tax na fu mas a sanc fu nekk daare alxuraan ji moom taalu jàngukaay bi daare kaami mag ñi nga xam ne ñoom la koy dénk yëpp dara du manqué loolu lay installé defar ko ba pare jàkka jumaa ji fi ñu war a julleeg yëpp nga xam ne moom mooy li taxoon ñu sañ ci dëkk bi mooy hëdëf bi ba léegi mooy objectif bi nga xam ne moom la sëriñ bi sañce woon dëkk bi euh, objectif boobu nag léeg ñu mel ne lu ko xaw a fàtte wala lu xaw a kii tuuti sëriñ bi delloo siwaat ñu Cheikh Mamadou Mountakha lu ci bëri daf ñuy daf ñuy delloo siwaat war nañu ne lii kat moo taxoon sëriñ Tuubaa sañcoon dëkkam bii muy njàng alquranul karim ak yar nit ñi teg leen ci lu baax waaye fexe it ba nga xam ne si seen diggante ak seen borom danañ ko fuglu bu baax a baax a baax loolu kon mat nay bàyyi xel bu baax a baax a baax moo tax daara yi ñu doon wax nii 1500 daara bëri na lool mu ngi Tuubaa euh, gone yi ñu ngi góorgóorlu ñi yor daara yi aussi ñi ngi góorgóorlu di euh, jéem a respecté loolu ak di jéem a yar gone yi ak di leen ci toqantal fexe ba nga xam ne si dañ ko waaye parent yi aussi niñ leen ci dimbali ci loolu leen jàppale ci wàllu gu nekk nag wàllu goo jël rek wàllu matériellement ñu leen di indil ay jumtuwaay ku war a fay daara nga war nga fay bu dee am nga kër goo xam ne si danga ko defar ba mu baax te kenn néew fa nga abal ko daara mu yóbbu fa ay gone leen jàngal ak yeneen ak yeneen boo dendee kër boo dendee ak daara léeg-léeg nga tibb boolu yóbbu fa gone yi léeg-léeg nga dem jël seen i yére fóot ak yu mel noonu yu sew sewaan yooyu dafa am solo lool lool lool ndax day bokk ci li nga xam ne dafay tax daara di gën a dund da ngay bokk ci ñi nga xam ne yaa ngi jàppale Serigne Touba ci liggéey bi ndax boo xooleen tey lu mel ne Touba ci kanam euh, nga xam ne euh, seen objectif moom mooy fexe ba bépp wàlla bu ñu mën a jàpp ci dëkk bi rek ñu jàpp ko ñu dimbali am solo di ko yóbbul daara yi ak yeneen i kuréel ay daayir ay ay kuréel yu bëree bëri yoo xam ne ñoom it dañuy def lu mel noonu te lañ ci jublu rek mooy barkeelu ci liggéey xam ne Sëriñ Tuubaa defaloo ko lu gën wala lu ko gën a neex liggéeyal ko ci alxuraan ci dëkkam bu sell bi kon loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax imaam Baydi muy euh, benn bayit rek bu sëñ Abdou Salaam jël daanaka tënk na lu bare bare bare ci jubluwaayu sëñ bi ak bëgg-bëggam ak xër goo xam ne amoon na ko ci alxuraan. waaw jërëjëf sëñ Mourou jërëjëf sëriñ Abdou Salaam yaakaar naa ne li mu wax ne bu ñu jëloon Serigne Touba ak alxuraan. Mhm. mun nga jël. Mhm. téeméeri conférencier mhm. yu maîtriser loolu. ku ne jël ci benn angle. wax ci te du jeex. Euh, ndax la mu waxoon ne. waccaxal fuaadi watanal ayaati sama xol na nga ko def muy dëkkuwaayu alxuraan. loolu moo taxoon mu fonk alxuraan teg ko foofu mu ko tegoon. Euh, wax naa sayt ne. uhaidullah ala axsil kitaab bi xidmatin lil Mustafa mhm. baabi sawaab mhm. nee maa ngi wëllante yàlla maa ngi jaayante yàlla mhm. ci jël téere bi dégg nga ci jàpp téere bi liggéeyal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam mooy buntub njub kon loola mooy wér tey loolu moom mooy liggéeyam. alxuraan rek mooy mooy mooy mooy liggéey demoon na sax ba ci biir xeex bi. ci biir xeex bi. Eh, bi bi mu eh, noon noonu yi am nañ seen i seen i ngànnaay ba tax ni ñi ragal leen. Mhm. waaye nee na moom ngànnaayam bi muy lim di lim ba ci ay sar de combat am wa madaafi'i lati biha an fil ida wa biha yufaariquni anidun qaasidu mhm. sikrun xakimun uhkimat ayatuhu mhm. mimman yusaxsihu ma yuridu lmaridu nee na samay sar de mooy alquranul karim sama salle ko combat yi nga xam ni ci lay taqalikoo mhm. képp ko xam ni bépp noonu boo xam ni yaa ngi mhm. jël dëgmal ma mhm. kon loolu mooy foofu la nekkoon foofu la defal alquran dem na ba ne quranu rabbi laa abqi bihi badala bihi yaquudu ila rabbil wala ulama leen alquran sama borom yàlla du ma ko wottee leneen ndax ci laay wommatee borom xam-xam yi. jëmaleen ci eh, ci jëmaleen ci jëmaleen ci suñu borom tabaaraka wa taala xam nga waxoon na sànq. yéen ngi duggoon ci buntub eh, eh, di jéem a xam. tadabbur def tadabbur mooy booy jàng alxuraan ngay teewul di xool. maanaam bu baax yi ma seetantal xam nga sëriñ bi wax na ci mosaa yi tam ne wa ayatun waxidatun tudubbirat fiiha te foo fooxu xatmatan minha xalat nee na benn aaya nga seetantal képp eh, nee na nee na kawe na nga jàng kawe bi yëpp benn aaya boo seetantal moo ëpp doole nga jàng kawe bi yëpp mm-hmm. loolu tam baax na nag waaye du ko ëpp dégg nga mm-hmm. kon eh, dem na bare sax ne man leer na ma naññi naññi naññi man Sëriñ Tuubaa mm-hmm. saxara lii anaxti saman bil kitaab wa bi hadisil Mustafa wa sabab leer na ma naññi ne mooy ci téere bii ak édition bi tam alkitaab bu sunna mm. ne lii mooy njub gi ndax loolu ma dëppoo la yonent bi wax ne taraktu fiikum amrayni lan tadilu ma in tamashaktum bihima te mooy kitaabullahi wa sunnati bàyyee naa leen ñaari yëf yoo xam ne lii nga doon junj yi wuuteeg jullit yi mu ne ci téere bi ak sunna rek na loolu lépp du am dégg nga ma bokk ixtilaaf wuute gi ci front tuuti lay doon rek loolu warul indi noonu ci biir jullit yi wur ci indi tam ak féewaloo euh, moom dem na woon na ba ne euh, xam diini kitaabul Mustafa la xayru mmh. diini kitaabul Moustapha la xayru wa yantawi ila siwaaya dayru nee sama diine du lenn lu may alxuraan. Mhm. moo tax si Musaa Ka nee na waxoon ne nee na soo feetiwoo di ko bindal. Mhm. mu feetiwoo di la dundal. Mhm. soo koy bindal di ko bayal mu sàkk ñuy bay di la jox <laughs> waaw waaw euh, euh, mu noonu uh-huh. kon noonu la fekkoon kon euh, dafa xam bii saa la xam mii ne am secteur hudan mm-hmm. Mm-hmm. bi ma ngoyee ci alxuraan mu njug rek ki daal lépp loo xam ne njàq la wala taxal daa taxalee ko dégg nga uh-huh. am mu jaay yàlla nag sa uhdi bii naf si uhdi bii sax mm-hmm. la leen di daal di daal leen di gindee. muy lu koo xam ne itam bénéfice képp la. dëgg la waaw dem na ba bind sa wa uxra yismo. nee na bénéfice su di dégg rek. muy di dem. Euh, kon moom lépp daa mooy xaan def na ba sax ne ma yem ma yem foofu rek. waaw jaxaltu kitaaballahi wirdi wa abtaxi bi tartili ma situ issaara li abba. nee dama def téere bi yàlla bi mhm. muy suma wérd mhm. te it nee na ki jàng ki ma koy jàng ki laay sàkkoo lépp lu ma bëgg ndax nee mooy sama parluwaay mooy fi nga xam ne daal mu fa duggee rek mhm. lépp lu ma bëgg dinaa ko fekk kon yaakaar naa ne eh, moo tax bi muy dem ma tëjee foofu rek bi muy dem gaa yi waxoon nañ ko ab nombre nombre ay nit yu mu war a àndal ak yooyu mbir bi ñu koy exilé tubaab bi waxoon nañ ko loolu mais mu ne rafiqi kitaabul Moustapha rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi wa asxaaboo fil baxri xiina aduru sama àndandoo daal doy na ma ci alxuraan ak yonent bi mhm. mooy teg sama tànk xam ko tegoon mhm. jël alxuraan tam mhm. tekki mooy kon naa teg sama benn tànk ci alxuraan benn bi gisul na rek naa dama naa def ndigal yàlla yi bàyyi cëram yi loolu noonu laa def muy sama àndandoo te loolu day waral day waral loolu mooy ragal yàlla. Mhm. moo tax ñu ragal ko. waaw loolu mooy waaye waaye souvent taxaf ilaahakal ahad yaxaf ko min xaw fi ko kulla saa yoo ragal yàlla lépp lu yàlla ragal la. waaw waaye itam soo ko yabee itam. sa femme bi mooy am. waaw ci li wér jërëjëf. jërëjëf imam ñu ngi lay sant bu baax di sant eh, sëñ Abdou baax a ci bu am solo bi muy eh, bayit nga xam ne eh, sëriñ bi mi ngi ciy wax rek digganteem ak alquran karim sëñ Abdou Salaam xam naa ko ñu daal di tëj ak xikma bi. waaw xikma bi sax de tey moom dama koy damay jël ab aaya alquran. waaw bismillah wutale ko ko ndax bunt bi moom daa mel ne. dafa yëngoogut. <laughs> waaw. te sëñ Mahamad it ubbi ci digg ak sëñ Tuubaa waxoon solo. yal ko yàlla fay. waaye boo xoolee aayaa ngi nii boo xam ne boo ko seetantalee rek. danga nga dana tënk liñ doon wax lépp. dana xat jaakum min allaahi nuurun wa kitaabun mubiin. xat jaakum fan la bàyyi ko min allaahi. lan moo leen dikkal nuur. Oh. wa kitaabun mubiin. kon. nee na lii ngeen am xanaa xamu leen ko. Mm-hmm. nee indi naa leen loo bawoo fi man yàlla te ko xool set. Mm-hmm. tànn ko muy leer. su boobu jaawalul si leeral gi lay leeral da ngay mën a xàmmee lu baax. Mm-hmm. ba di ko jëf leer gi lay leeral da ngay xàmmee lu bon mën koo bàyyi. leer gi lay xàmmeel li am njëriñ ci àdduna nga man koo def. leer gi lay tegtal li amul njëriñ nga mën koo baax. leer gi lay wan yoonu njub. leer gi leer kon leer a leer gi leeral sa mbir yi àdduna yëpp ak sa mbir àllaaxira waaye muy téere bul ràññ ko boo xam ne sa tàmbali téere ba rek dala wax alif lam zalikal kitab dalaa garanté na laa rayba fii téere la boo xam ne loo si gis bu ko sikk sàkk moo tax dégg naa am na ñu wax ne am na ku ñëwoon sëñ Abdou Xaadir di ko wax mu firil ko dara si alxuraan waaye ko ne du jàng kullu ma kullu nafsin zaa'iqatul mawt mu ko waaw mu ne ko noonu mu wéree noonu lépp alxuraan wéree bakkan bu mos dund da nga mos faatu hmm. loolu moom ñu gëmul yàlla sax gëm nañ dee moom hmm. ndax ñu ngi koy gis ah, kenn ku fekk maamaate maamam. Mm-hmm. yooyu jiitoo jiitu amu fi. déedéet. yaa ngi dégg. Mm-hmm. te boo fi nee jàngaab diir it. Mm-hmm. gis ku judd sa kanam faatu. wala ku la njëkkoon a judd faatu. kon dee moom duñ ko weddi. nee nag noonu mu wéree liy desi alxuraan lépp noonu la wéree. képp koo xam ne si ne mën ngaa teg sa loxo waat ne kuy dund da nga faatu maa ngi la waatal ne alxuraan leneen li si des lépp. noonu lay dëggoon ni rek nii la loolu. la dëggee waaye mu ne sëñ sëñ sëñ Mouhamad mu ne. yahdi subula salaam wa yuxrijuhum mina zulumaati ila nuur xolal lii ñoom ñu lànk bi isnihi nee na yoon woowu yàlla kat bi mu wàccee leer googu ak téere bu leer boobu nàññi boobu yii nga xam ne dara sikk sàkk amu ci dara si lu war a jaaxal nit amu si lépp wér nee na téere boobu nag yahdi bihi llaahu man ittaba'a ridwaanahu si la yàlla jubale ñu bëgg a jaar si yoonu ngërëmam muy lislaam yoonu jàmba ngoog ku bëgg a jàmm jàmm ji ñuy wax nee na la salaam moo leen wa yuxrijuhum mina zulumaati ila nuur bi izni moo leen di génnee itam ci lëndëm bu weddi yàlla ak bokkaale ak bàyyi fi li yàlla tànn di tànnal seen bopp jëme leen ci leeru njub ak topp sunna ak tege sa tànk ci siraatal mustaqim dëgg la wa di wa yahdihim ila siraatil mustaqim mhm. kon waaye waaye nañu jéem a delluwaat ci téere bi mhm. te jëm koo jàng xam ne ay maalimam ay maqaasidam te jëm see tënku yàlla ñu ko yàlla dunduloo am solo amiin yaa rabbal te nanguñu koo def sax muy sun imaam ci lépp allahumma amiin imaam jërëjëf sëriñ Ahmadou Rafahi Mbacke ñu ngi ñu ngi koy nuyu bu baax ah, ñu ngi koy nuyu di ko ñaal mhm. taw feex suñu borom koy topp jotaay bi mhm. toujours te di ko yitteel nag mhm. waaw day woote sax di <laughs> waaw toujours mi mi ci mi ngi koy bàyyi xel euh, xam nga qad jaakum minallaahi nuurun wa kitaabun mubiin illil naa leen ak leer gu jóge fi man ak téere bu boo xam ne mooy leeral lépp mooy mooy lépp lu lënt mooy ñu koy leeral mu yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ak alquraan mii kon li ñu waxoon léegi rek ne li mu waxoon léegi bàyyi naa leen ñaar yi ba léegi mooy loolu rek mooy alkitaab sunna sunna loolu nag ki ko topp yahdi bihi llaahu man ittaba waxul yahdi bihi llaahu man at ma man yutiix te ah, aw mel noonu dégg man ittaba mooy danga koy topp topp goo xam ne ca ndigal ya doo ci am looy xiili xaala <laughs> dégg nga ah. yahdi bihi llaahu man ittaba ridwaanu subala salaam yooni njub yooni jàmm yaa nga koy mën a gindiku ci mm-hmm. li la yàlla indil ak bi téere bi indi ak yonent ci ngeen di mën a génne ko ni mu ko waxee sànq. waaw lëndëm lëndëm mi ngaayoo gii ngeen nekk. Mm-hmm. wedd yàlla gii ngeen nekk. Mm-hmm. xat-xat yi ngeen nekk. Mm-hmm. ay wii ngeen di firfiri. ci ngeen ci mën a génne ci lëndëm lëndëm yooyu jëm ci leeru sécurité. leeru ngëm yàlla. leeru jikko yu baax. leeru économie bu avancé. leeru éthique. dégg nga. moral ak noo ko mën a tuddee. faw da di mooy ci alxuraan di jëfee ndigalam. bàyyi tereem. door a mën a génn ci yu mel noonu. Mhm. kon loolu ci tënk rek kon mooy. Mhm. ci ngeen di mën a gindeeku ci yoon wu jub bi. Mhm. yoon wu jub xam nga loolu dellusiwaat na ci kon yéen a di yàqu. yoon wi gën a jub rek la di orienté. ci lu ma doon nag damaa bëgg jàmm. Mm-hmm. seet rek lu yàlla wax. waaw dégg nga. ci sa ndax li di yàqoom day ñëwaat ba ci même sa relation. Mm-hmm. relation yi nga xam ne da nga koy am sax moo xam individuel wala collectif. Mm-hmm. yooyu yëpp sax. benn benn nga ko am ñi nga ko amal. yooyu yëpp relation yooyu sax it. Eh, li si alxuraan moo la koy ràbbalal. xamal ni nga koy doxalee. léegi nag. Euh, ma tënk ma jeexal foofu kon moo lay moo lay koy xamal waaye nag. Mhm. loolu nag alxuraan da ko rab rab woo xam ne. Mhm. xalaatu nit mënut caa jeexital. waaw xalaatu nit. waaw mënut caa jeexital. ci mhm. bëgg wala bañ. mënu koo jengloo. sàmm mu nit ay intérêt ak ay privilège am mënu ko wëlbati. ba du àgg ci objectif kon nañ ci dellu dëgg dañ ciy dellu. waaye ah, waaye waaye ñun mën nañu vraiment suñu lu ñu layeeg layeeg layeeg. waaw ah. am na at yoo xam ciy dugg. Mhm. war nañuy seet di ko jéem a dëppale. Mhm. ak alxuraan kay donte am na yu dëppoo moom. Mhm. waaye yu bari nag. vraiment dafa contrat. Ah, waaw dëgg la dëgg la moo tax bàyyi xel loolu la. tey it ñu xam ne lu waay euh, wax fii da nga wax waxaat ëllëg lu waay àtte fii da nga ko àtteewaat ëllëg. Euh, ci kanamu suñu borom te bu boobaa suñu borom day jël alxuraan teg te bu boobaa alxuraan lay yeey amul werante euh, kon ñu sanaat bu baax baax sëñ Abdou Salaam Dieng moo nekkoon suñu ganu tey jaajëfal bu baax a baax it imaam euh, mu nekkoon ci régie ba ngeen mën ñoo dégg mën ñoo gis sëñ Lamine Touré ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax sëñ Lamine ñu ngi yónnee nuyu di ko ziar bu baax a baax di santaat mboolem koo xam ne rek yaa ngi doon seetaan seen émission Asabah seen télévision Al Mouridiyyah sëñ Moussa Diagne di jëwriñu daaray Fathul Fatah soppe Asabah koy nuyu di ko siyaar bu baax ak mboolem waa daara ji yëpp rek góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar leen jox dig daje kon ëllëg ak jàmm wala ginnaaw ëllëg ci gaaw bi incha allah euh, di leen ñaanal bëccëgu jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. بنيت اليوم أبدا بسجري وأن يطوف الآل ونار وصبا نبت لخال الله عبدا مراتلا لسجر الأكيم أن جنابي إذا صبا أراتل ما دمت أيا وأتيه وأني بإبليس أنا متي غبا إليه بجاي وهو مؤمن وعاش له الملك والحمد والآل قد سبا خرجت بفضل الله من كل باتل وفارق تدبير بي دفع وجلبا رليت به الأبد كريما مكرما وقع الإداء والحرب والبهر والسلبا أفكساي على المولى بلادي سوي الفلاح ولي وجه مرا بدمري سلبا نويت لتوبى باسمي وأودت جسمي وأودت خلبا نويت نار لتوبى به وعودة جسمي وعودة خلبا رياجت من معلا عباداتهم إشياء رب الورى الباء مرامي يسيني رب مقدم قديم له ملك أبصر قوى القربان نجاتي من اللهداء والبهر والبلاء خريبا ويدا من أبيس الملا جربا فدعا تعالى بعد ما تتوالك بجاي لسيقة سينا الأنو الحرباء ناجي في شر وجير وأرتجي خلاي وإسلائي بي ألا وترباء